baleem di baleel président Macky Sall yoon wi naan ko ñaañal jàll te xam ne élection yi di ñëw moom yaay boroom mi ngi ci xët wu njëkku la quotidien laas nañu moom koy ñemee dëgg rek la def ne ku ko bàyyi muy jël suñu réew mi di ko sàmm ba koy jël di jaay mi ngi wuyoo ci turu Pape Samba Mboup kon chef de cabinet njiitum réew ma woon Abdoulaye Wade moo amee xët wu njëkku la quotidien laas ñu àndandoo yër xët wu njëkk journal yi Pape Samba nee na Macky boo tëddee nalawal ba yandoor te nga dox ba kenn laal la sax ma digaale koog moom te xam ne troisième mandat moom jafe wala ci mim réew li jafe ñépp ci mim réew te kenn mënu ko fee jëlee kay mi ngi ci xët wu njëkku laa leen xët wu njëkku journal bi ak jàngoroy coronavirus journal bi ne ñu moom kay dafa far rek toog ci suñ diggu bopp yi ndax ci diiru juróom-ñaari fan rek rey na lu toll ci ñaar fukk ñeent ci ay néew laa turbine ne ñu moom kay lim ba romb na foofa ndax fi mu ne nii Sénégal manees nañ ne mi ngi am lu toll 5880 128 ci ay cas 3919 yi moom nee nañ wér nañ waaye juróom-ñett fukk ak ñeent yee ñoom ña nga barzaq le mel na ku koy feelu naan ko Sénégal kay fi mu ne nii bu amul téeméeri néew rek du am lu ko neex sursu anangoo wax ji ca moom ne ko loolu kay moom maa la koy dëggalal ndax Sénégal fi mu ne nii moom woppi covid 19 ji kenn da koo gëmal ndax tambaambalu ci xew yéeg dëj yi mi ngi mel na rek tuqusu bënn saañ ba réer ñu waxal lu ko metti ba muy xëy di miim mi ngi ci xët wu njëkk l'observateur ubbi leen xët wu njëkk journal bi Serigne Mbaye Thiam Serigne Mbaye Thiam yor lépp lu jëm ci wàllum ndox mi ma ngay xëy di weddee ka mim fële ca l'observateur Serigne Mbaye Thiam ne facture yi ñu ne dinañ koy yokk ci weer wi ñu jëm loolu lépp dara du ca dëgg dañoo bëgg a taqal rek sama der waaye Serigne Mbaye Thiam nee na li ma gën a métti rek ci yëf yi mooy ñàkkum ndox mu métti mi waa Ndakaaru di dundee dinaa ci def lépp lu ma mën ba balaa année bee jeex moom ñàkkum ndox kenn dootu ko wax ci mim réew journal bi nañu moom kay yabaate dëgg rek la def ndax moom xanaa da leen jool ca wet ga ndax gox gox yii di saam xayra un xayra deux daaru minam yii ci ñàkkum ndox mu metti lañu nekk lu ñu lekk sa amatuñu ko waxumala ak lu ñuy sangoo ki nërta am lu mu lekk tali ko nara dal seddul mi ngi ci xët wu njëkku l'observateur ak l'ancien commissaire de police bi booba kar Sadio moom mi waa dig xëy ko woolu mi ngi ci xët wu njëkku l'observateur ubbi leen xët wu njëkku journal bi moom kay nag moom ci division des investigations criminelles rek lañ ko yóbbu xanaa la mu def rëy na moom kay nag moom ña ngi koy toppee ak génn ci deru président Macky Sall moom kay bu maytuwul Macky Sall dinañ ko yóbbu foo xam ne bu maytuwul kenn du ko fa fekk ki ko fa nar a fekk te li ko nar dal seddul mi ngi ci xët wu njëkku journal bi ak journaliste bi di Cheikh Yirim Seck ginnaaw coowal batu pilote Cheikh Yirim amati na la ne dugg na naru ba rek ne yàq ëmb lañ koy toppee fi mu ne nii coowal yàq ëmb journal bi ne ñu moom kay bii yoon moom mu génn ca rek du yomb ndax far nañu jàpp ñu laale ca mbir ya di benn mineur ak xaritam bu jigéen ak infirmière bi nga xam ne moo doon def avortement ba moom kay yërim bu moytuwul boppam moom dina yàq carrière waxuma la dara sax waaye bakkanam moom mi ngi ci xortu gerte di bakkanam weesu xortu gerte mi ngi ci xët wu njëkk l'observateur ubbi leen journal bi ak ji waa këram doon xuloo ci facture courant mu doon atte ba far te daanu kiris ba far ñàkk ca bakkanam di xawma bu demee lu muy far wax yàlla rek ba ëllëg ak jàmm yàlla rek